muxtaar lu sëriñ Babacar si amoon ci wàllu cëru yàlla ci wàllu wilaaya wa bi sharafil quran am na ko man gëm naa ko xam nga sëriñ Cheikh dafa wax ne xale yi tuñ ma dañ duñ ma diis soxla et pourtant lu ci sëriñ Babacar si amoon am naa ko waaye man gëm naa ni koo tungoom mu sut la te sëriñ Moustapha ci wàllu cëru yàlla doomu soxna rawu ko ci wàllu wilaaya doomu soxna rawu ko ci wàllu tabe ci doomu soxna raw ko coonoom yëpp mooy tabe ci wàllu cëru yàlla ak yéene kenn bañ a yàqu yéene kenn bañ ay sànku ci àdduna yéene bu rëy boobu ko dar ba bu sañoon melentaan sax nga Seydina Omar ibnul Xataab li mu waxoon ne melentaan bu fakkastalu ci Iraq man lañuy laaj responsable sëriñ bi loolu la gën moo tax njaboot bu mu am daf la yéene bu mu am dafa yéene nga tiim ñëpp ci cëru yàlla ci lu ne